Abdoulaye Ndiaye Ngalgu taalibi Serigne Abdoul Aziz Al Amin sa xarit bi Yelimin Gumbala sa tub Ayoub Balansaar boobu moo def teraanga bi wax ni nit nga koo xamante ni nit ku mën a def teraanga moo tax teraanga bula waaye defal day fay bor tabaarakallahu wax ni nag sa diggante yaa ngi moom altine ak talaata la bis toxu fi Yelimin Gumbala wax ni du jënd nag du jënd xar yéeneem ci yow mooy jëndal la gileem gu mag dimbalee la ko ci bisu Seydina Muhammad bi waaye ci bisu Seex Seydil Haaj bég naa si teraange bi lool def naa du tay la ko mos a def tabaski bi andil nga ma xar ne ma yéele moom la ko jox donc euh, du tay la ko def li fi andi aussi di gileem gi du tay aussi la ko njëkkee donc maa ngi koy ñaanu yàlla yàlla euh, taxawu ko yàlla jàppale ko ba lépp loo xam mën na ko ren yàlla dafa dogal ko mu mën ko lu bare bare bare bare fi nga xam ne te moom la nekk di fa liggéey yàlla na fa am promotion yu kawe njort. amiin yaa rabbi ci barke yonent bi yow aussi vraiment yaa ko dara yow tamit nit baax nga. yaa ngi rafetal yaa ngi yaa ngi dox. lu rafet a rafet. donc yow ngi lay sant fu ñu toll yàlla na yàlla taxawal yow tamit barke yonent bi sallallahu la gërëm jërëjëf.